Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy layal Ndeye Khady Ndiaye ni démb dafa daal sàkk ñu daal dàq li nga xam ne mooy àtte bi ngir ñu gën a mën a li nga xam ne mooy dossier bi maître Tall moom tim dafa sàkku démb ñu daal dàq li nga xam ne mooy àtte bi ndax nee na Ndeye Khady Ndiaye dafa ëmb ëmb boo xam ne sori lool dañu ko war a dàq ba mois de septembre su ko defee fekk Ndeye Khady Ndiaye daal am doom mbir mi gën a nag mën a yomb journal bi di réew mi quotidien convocation yi ba tey ci biir journal bi avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom nee am na tamit ay seede yoo xam ne dañoo war a ñëw ci mel ni Mamadou Mamour Diallo ak Baye Mbaye MC lii lépp war naa tax ñu mën a dàq li nga xam ne mooy audience bi procureur Abdou Karim Diop démb moom tim dafa daal jël kàddu gi ne procès bi kenn du dàq ndax Ousmane Sonko jox nañu ko ab convocation fukki fan ak ci weeru mai loole nag maître Ciré Clédor Ly moom tim daf ko daal di Ousmane Sonko ne atte bi dañu ko war a dàq ndax seen client bi amul benn yoon boo xam ne jot na ab convocation ba tey ci biir bi procureur Abdou Karim moom tim daal di ay tontu na leen yéen seen client moo dem fële nga xam ne mooy diwaanu Ziguinchor daal di fay toog lànk ba tëdd sa naaj wa na wuy ci yoon ba pare di woote li nga xam ne mooy ab résistance yéen kay gi Sud Quotidien xëy duñu xibaar ñu démb atte bi amutoon ay ne mooy audience bi Ousmane Sonko démb nekkutoon na ay yoon yoona yéen i kaay gi di Sud Quotidien nee na Adji mi nga xam ne mooy tuumaal Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum viol daat nay sàkku ñun daal di koy ndàmp lu toll ci benn milliard bu fekk juróomi téeméeri million ba tey ci biir journal bi démb procureur bi daat nay wax capitaine Touré na ko yow li xew ci réew mi yëpp maanaam sa mi ngi ci biir yéen i kaay gi di réew mi Quotidien Ndeye Khady Ndiaye ni ki démb moom tim andi na ay leeral ci lan moo tax mu daal di ubbi li nga xam ne mooy salon de bi bi daal di koy laaj na ko ndax Ousmane Sonko bu mosaa ñëw moom mooy tànn Adji Sarr daal di koy maase Ndeye Khady kaay daal di koy weddi nee na amul benn client boo xam ne yaay ñëw di wax kan moo lay maase yéen kaay gi di réew mi ñu xibaar naan ñu Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye ñoom ñaar démb kenn ku nekk lu xonq nga sol Adji Sarr daal nay dëggal tuuma yi nga xam ne gàlloon na ko ci ndoddul Ousmane Sonko waaye moom Adji Sarr wax na xeetu massage yu doy waar yi nga xam ne moo am ci Sweet Beauty daal nay wax ne am na massage boo xam ne da ngay simmeeku ba set wecc maanaam ñu lay sotti huile fexe ba nga daanu loolee Adji na wax tamit ne ba muy massé Ousmane Sonko boobee ab robb la soloon waaye tamit solutoon slip ba mu pare Ousmane Sonko daf ko daal di tëral jël loxoom dugal ko ci kanamam ci noonee ci la daal di yegg ci kawam Adji Sarr wax ne Ousmane Sonko da ko doon jox xaalis ay yoonu yoona naan ko jëndal pilule du lendemain Adji Sarr ci biir journal bi nee na musuta ëmb bi muy wax ne dafa ëmb dafa bëggoon a génn ci salon bi Adji Sarr nee na musta ëmb musta am jëkkër Adji Sarr nee na bi mu waxee Ndeye Khady Ndiaye ne ko damaa ëmb Ndeye Khady Ndiaye daf wax na ko jëlal li nga xam ne mooy Coca Cola daal di koy jaxase ak café daal di koy naan ngir nag ëmb bi nga mën ko yàq yéen kaay gi di Sud Quotidien ak Le Quotidien yaakaar naan ñu Aïssata Ba moom tim bokk na ci seede yi nga xam ne démb taxaw nañ ci baar bi daan nay wax ne benn semaine la def ci fi nga xam ne mooy Sweet Beauté waaye nag massage yi nga xam ne Adji Sarr wax na ko loolu lépp Aïssata Ba daf koo weddi ba tëdd sa naaj wa nee na Ousmane Sonko benn yoon laa ko mas a maase te Ousmane Sonko boobee simmiku la maanaam mbub mi rek la simmi daal di sëgg ñu koy maase bi ñu demee ba massage bi waaj jeex si la ma Adji Sarr wax génnal Adji Sarr nag ba mu maasee Ousmane Sonko ba pare dafa génn di wax téléphone dégg naa li mu doon wax ndax téléphone bi baaxutoon da koo haut di wax ne Ousmane éjaculé na moom Aïssata Ba dafa jàppoon sax ne Adji Sarr dafa bëgg a liggéey Ousmane Sonko ci sperme bi nga xam ne moom la doon wax weddi na Adji ndax nee na ñi nga xam ne ñooy clients yi amul kenn koo xam ne maanaam da si doon ba set yéen kaay gii de sax xëy duñu xibaar naan ñu atteb Ousmane Sonko bi ak Adji Sarr sorewut ak film porno Adji Sarr ni ki démb wax na lu doy ci tribunalum Dakar enquête yéen kaay ci kaso la ñu koy tëj journal bi nee na délibération bi jàpp nañu ko benn fan ci weeru juin wi nga xam ne moom lañu ñu dëg ma la Ndeye Khady Ndiaye moom tim boo muy tuulee danañu ko tëj lu toll si juróomi ati kaso pour complicité de viol yéen i kaay gi di réew mi quotidien Ndeye Khady Ndiaye moom tim daat nay seetal Ousmane Sonko weddi ki nga xam ne mooy Adji Sarr moom Ndeye Khady Ndiaye nee na benn bis ñëw na sax fekk Adji sar mu daal di toog ci kaw góora boobee si la ko daal di dàq Sud Quotidien Ndeye Khady Ndiaye type de massage yi nga xam ne Adji Sarr wax na ko weddi na ko ba tëdd sa naaj wa te nag Ousmane Sonko ñëw maanaam di tànn kan moo koy maase yéenekaay gi de La Tribune nee na Adji Sarr démb dañu ko courser ngir mu yëkkati kàddu yu doy waar yoo xam ne maanaam dina soke ñi nga xam ne ñooy attekat yi yéenekaay gi di Rewmi Quotidien capitaine Touré moom tim démb daat nay dëggal ne li nga xam ne mooy PV yi dañu ko daal di modifier ndax am na lu bari lo Ndeye Khady Ndiaye wax loo xam ne loolee nekkul ci PV yi yéenekaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu atte démb bi sorewut ak film porno yéenekaay gi de yi nee nañu dossier bi kenn mënu Ousmane Sonko dal ci kaw Adji Sarr journal bi ñu xëy fekk fa docteur Alphousseynou Gaye gynécologue bi nga xamante ni moo def rapport médical bi daan moo àndoon ak Sidi Mouhamed Mbaye dem ki nga xam ne mooy Adji Sarr ginnaaw bi ko ko avocat bii di Gabi Sow daal di santé moom docteur Alphousseynou Gaye nee na ginnaaw consultation bi tamit mbir mi nga xam ne jëlee nañu ko ci Adji Sarr dañu ko yóbbu def analyse analyse bi nag wane na ne sperme ma ngi ci biir Adji Sarr yéen kaay gi di Sud Quotidien maître Ousseynou Gaye mi nga xam ne mooy avocat Ndeye Khady Ndiaye démb moom tim sàkku nañu dàq li nga xam ne mooy atte bi ñi nga xam ne ñooy avocat yi Ousmane Sonko dañoo bëggoon a ñëw jàppale Ndeye Khady Ndiaye waaye nag ñu leen maanaam fu ñu yekkee seenu nag yéen kaay nee na Ndeye Khady Ndiaye démb dafa mujjoon a lànk ba tëdd sa naaj wa ne du toog ci benn siis yéen kaay gi de Les Échos nee na bu fegg lay laaj ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéen kaay gi de La Témoin xëy nag fësal ci njëkk ne Adji star de porno docteur Gaye démb lànk ba tëdd sa naaj wa la def bañ a wax lu jëm ci wàllum viol yéen kaay gi di alerte xëy bu ñu diwaanu Ziguinchor nee na kër ministre Doudou Ka dañu ko daal di song ay samba boo yoo